asalaamaaleykum mbokk internet dakarnet point com comme ni ñu koy defee saa su nekk di leen kuréel champion yi fii yoo xam ne dañoo nekk ci arène bi di bëree euh, tey dañ dañ ci dalal koo xam ne mun naa ne kenn doon ko présenté ci fii nii euh, dakarnet muy Alliance Baldé du ñu def rek lu dul jox ko kàddu yi mun di rek après ñu waxtaan Alliance ñu leen di di la ziar waaw jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba salaamaaleykum Sénégal maa ngi nuyu mbokk internet yëpp di nuyu waa Dakarnet mm-hmm. waaw di la siyaaraat di wax jërëjëf Serigne Touba di nuyu suma wasila suma xarit suñ Serigne Abdou mm. Bara Mbacké Falilou yàlla na yàlla guddal fanam te wéral ko di ñaanal bépp kilifa diina ak kilifa aada suñu borom yàggal leen fi mm. yàggal seen taxawaay mm. waaw waaw kooku mooy alliance yaakaar naa ne gars yi xàmmee ngeen ko duñu def lu rek xuus dugg ci waxtaan bi te duñu waxtaan bi tey du nekk lu dul rek ci làmb ji alliance gis nañu fan yi passé ni promoteurs yi di jëlee ñuy tëggee combat gis ay leader ku ci mel ni sax Balla Gaye ak ak euh, Boy Niang gis ñoom dañuy am chaque jour di di jël ay ay trois avance te yéen ñi nekk mbëri ndaw yi du leen sax dégg lan moo waral loolu lan nga ko gisee. waaw parce que boo xoolee lamb ji daam ku ma am ndey ak ku ma amul ndey. lamb ji dafa am ku ma am ndey ku ma amul ndey. Hmm. waaw bu fekkee nag ku ma am ndey nga Balla Gaye am na wéeruwaay bu dëgër Boy ñaar tamit waxi noonu. pour ñu am combat day yomb pour ñu waxaale seen combat day yomb. bu fekkee mbër bu ndaw bi la am na ci ñoo xam ne bu ñu fayul xaalis jëndul xaalis jox ko promoteur duñ bëre. mais mais mais aussi tamit loolu bu fekkee noonu lañ ko bëgg a jàppee est que di ngeen bëri. dina am ñoo xam ne duñ bëre de man xam nga man sama lamañ dammul sama poos man moom damay bëri <laughs> man moom sawaay eh. kenn du ma dugal ci loo xam ne bëgguma ko. man damay bëre damay bëre parce que promoteurs yi ñëpp yemuñu. Mm-hmm. bu ñuy mënee fen ñii dañuy wax dëkk àdduna moo demee am na ñoo xam ne nag luñ la wax du dëgg. am na ci promoteur ñoo xam ne luñ la wax du dëgg. déedéet luñ la wax du dëgg. d'accord waaw liñ lay wax ak li ñuy def day wute. Mm-hmm. Mm-hmm. mais pourquoi nga gëj a bëre alliance. non man daaw corona moo tax bëriwuma. Mm-hmm. parce que amoon naa ci combat mais après. comme Covid bi ñëwoon na ak feebar bi yàlla def teewul mais man depuis. Mhm. weeru koor ba léegi ñu ngi may contacter parce que xale yi ñu booy ñoo bëgg a bëreeg man. gars yi ñoo bëgg a ñoo bëgg a bëreeg man. Mhm. Mhm. da nga di ndaanaan nag. waaw waaw ku ci la ngay proposer des fois. wuli doon nañ ma ay waxam après mu am combat. mais wuli mel mais instant ñu ngi may wax bip pato xam nga. jàpp policier dóor ko dara fekku la ci daa neex. parce que yenn saa yi dañ lay dóor dóor yoo xam ne dara du leen ci fekk man ma am envie dóor duma policier dara du ma ci fekk. envie du ma policier. te dara duma ci fekk. mais Alioune xanaa policier daa mën na def. non bëgg bëgg mooy ba nga bëgg a fay ko ci big pato ne da nga jàpp du ma policier. non ñun ñamal nañ ma moom parce que <laughs> tëb naa miir na taan ñu jàpp ma escanté ma lool laa bëgg a fay su big pato. ci big pato waaw mais mais big pato daan na de Alioune. day xeex day bëri soxla soxla moom damaa soxla duma ko ba mu tëddal boppam. loolu yomb na de. <laughs> man de ku ma xam-xam ne lu ma wax dama koy jëfe waaw si dëgg la gis nañ say say say combat sax ngay kaaw mais boo nee big. quatre kaaw la am quatre dóor mu daan. waaw ñi ma dóor ñu daan ñëpp ñoo gën a nekk ndaanaan. moom benn ñaari combat la am benn défaite benn victoire. Mhm. mais pourquoi nga bëgg a yow nga choisir jël Big Pato. non parce que moom moo fi nekk fi mu toll nii actuellement moom lañ may wax. Mhm. bu yàggee rek ci moom la yàggee. wuli. non wuli am na combat Alaaji Mbay lay bëreel. Mhm. mais combat boobu ñañ ci maam combat boobu noonu tey yaakaar ko ci pare mën a bëre ak yow. non Alaaji suma frère la. wuli moom garaawul saa bu paree pare naa mais Alaaji mbay moom suma frère la quoi. Mhm. Mhm. na nga gisee lit nekk maa euh, mbër nekk leader. Mhm. di jël ay trois avance di préparer trois combats. waaw doy na waar moom mais tamit. comme loolu day avancé làmb ji ah na ñëpp jël trois avance rek na xale yeeg mag ñee ñëpp jël trois avance rek. tey ku joxoon trois avance boo ma joxee cinq sax dama koy jël. mais loolu nekkul pression ci mbër bi. non parce que boo xoolee làmb yu ndaw yi ñooy gën a neex làmb yu mag yi. Hmm. dangay fay mbër cent mille fay mbër deux cent millions. Hmm. combat cent mille bi daax combat deux cent millions. làmb moo tëddee noonu parce que ñoom lu ñuy sóor moo bëri tey. boo tëggee ku mel ne Lac de Guiers mun naa diree ku trente cinq minutes du bëri. <laughs> Lac de Guiers ah? nga fay ko vingt millions fay booy bi cent mille combat cent mille bi ñëw ndax combat am Lac de Guiers musul bëri combat bu neex. mais pourquoi stage du Lac de Guiers Lac de Guiers. waaw parce que moom mooy mbër bi nga xam ne euh, kii la nu mu tërati jongoma la jeeg la <laughs> day diree ko rek. day diree ko mais mais mais aussi Lac am na ay combat day day jàpp gars yi di daana. Lac bi xeex ak ñoom. combat nes la gëj a bëree ba léegi. combat nees. waaw mais tey am na ñoo xam ne ñu fi tudd ay champion yoo xam ne lat benn daan ku ci mel ni. Tafatin. la Tafatin moo bëre ba daanu. Tafatin moo bëre ba daanu. waxaatal keneen. ku Lac de Guiers daan ku bëre la de Guiers. Hmm. Lac ñu bëreel ñëpp ñoom ñoo def action mu daan leen. Issa Pouye. Lac moo def action la de Guiers daan ko. la Lac de Guiers daal moom mun nañu jàpp ko ni muy bëree moom. fi muy taxaw deux pas du ko avancer du ko arrière moom tànk ginnaaw la gën a am comme ay tànk kanam. mais pourquoi pas ñoom maam ñu mu war a bëreel ñoom ñëw di ko attaquer di ko jàpp di ko gëtam di ko daan. comme Balla Gaye ni muy def parce que parce que am na mbër yoo xam ne boo leen fekkee seen manin ñu daan la. am na mbër yoo xam ne. boo leen fekkee seen manin ñu daan la Lac de loolu la man ñu taxaw foofu mu taxaw saay boo ko fa fekkee mu daan la. d'accord. Mhm. mais nanga gisee combat Ama Baldé ak Modou Lo bari na coow. waaw mais ñëpp xam nañ ne pikin dañoo soxla roi des arènes te dañ koy jël incha allah. dangeen ko soxla dangeen koy jël. mu facile noonu noonu at ce xam ngeen ki ngeen euh, ku Pikine ku mu am. Ama Baldé benn jabar la am. <laughs> Alliance Bor lay waaye nga benn jabar la am. Modou Lo nga bëgg wax <laughs> ñaar jabar. moom mu ngi waaj dugg si ñetteel. <laughs> waaw xam nga ko am mais moom am na ñaari xaw am na ñaari jabar nii te instant mooy roi des arènes moom mooy ñëpp soxla. moo roi suñu borom moo ne woon da koy jël comme ni mu ko jëlee noonu la ko Ama Baldé war a jëlee parce que roi des roi des arènes jar na Pikine jar na Géejawaay. Mhm. daa a ñëwaat Pikine. Mhm. combat na ngeen koy paree waa yéen waa Pikine. comme ni ñuy paree yeneen combat yi rek. ànd cee xel mu dal. Mhm. ñëw bëre xeex xeex bi daan daan bi. jàppoo leen yeneen yéen yéen doog am combat parce que ku xam Ama xam aussi tamit euh, Modou Lo nga xam ne ñoom ñaar seen maam seen tracé dafa yàgg fu ñu dajee dëkkante affaire yooyu noonu peut que Ama Baldé fu mu tool danaan Modou Lo la bëgg a daan Modou Lo yow roi des arènes loolu yéen na na ngeen koy dundee. Ama Baldé ba mu daree bëri ba bu mu jël ñu ne am na combat wax ma ban combat la bëre ñu ne Acambay. non si bëre naag Tapha Tine. ñu bëree bëree bu metti mu daan ko mu daan ko. mu bëree Malick Niang ñëpp ne tey mu dee. waaw Ama daan ko. waaw mais mais mais fu mais fu mu war a dugg mooy problème bi. man de boo mu doon joxaat tafaatin di ma joxaat Modou Lo dix fois damay jël Modou Lo dix fois bàyyi Tafatine moo gën a nekk danger. ba moo gën a nekk danger nga. Tafatine moo gën a nekk danger Modou moo gën a jot moo dàq dóor. Mhm. fi mu taxaw du fa jógee. Mhm. waaw. mais dañoo gis Ama ndeysaan moom saay saay saa yi bu ne prip ak koo mënti tool da lay fekki. waaw mais noonu la boo demee ba ne yow góor yàlla nga rek. Mhm. amaana yow fu góor taxaw war nga ko mën a jëli quoi bu fekkee góor yàlla nga te li ngay woote gëm li ngay woote mu ngi ci yow. Mhm. Mhm. mais aussi ka muy fekk tamit moom du arrière parce que boo gisee combat mi muy ñàkk yëpp presque ñàkk arrière moo koy daal. Modou man pour man bëreegul ak mbër bu mel ni Balla gay bu am safara Modou Lo ñu bëreel ñëpp day dox seen maayen wala ñu koy bàyyi xel te doomu aadama fekk yaa ngi koy bàyyi doo ko daal. ak champion yu Modou Lo bëreel yëpp. billaay xoolal combat yu mu bëre yëpp. day dox seen mayeen ñii dañ koy bàyyi xel naan bu ma defee lii bu ma defee lii mbër fekk yaa ngi koy sóor doo ko mm-hmm. ah, da cee teg ñàkk moom. teg am Ama sóorul si àdduna. Mm-hmm. Ama noo toll mu dox sa kaw. Mm-hmm. loolu nga gis daal da Ama bu jàppee saa waay bit man de ànd naa ci xel mu dal te bu ma doon teg sama bakkan ci Ama laa koy teg. wàllu xeex bi. Ama pare na fépp Ama xale la. Modou Lo booy xool magee na ama mois lu tout tuut cinq ans wala six ans. Mhm. waaw. mais mais tamit combat bi dina métti de parce que Modou dafa ñëw Pikine daan fa ñaari champion daan fa benn champion. Mhm. mu daan ko ñaari yoon. waaw léegi loolu na na ko Ama bi dem day braale revanche wala wala wala wala nu mu fa demee. waaw ah, mais Ama Baldé tam daa dugg parcelle yoof daan fa ay champion yu bëri moom ñaar rek la daan. Mhm. Ama daal daan ay champion yëpp. Europe Énergie ñaar la fa Ama daan. kon combat boobu du yomb. waaw kay moom ñaar rek la daan mais Ama daan daan Zarko daan Baye Pël. Mhm. daan Malick Niang. Mhm. dugg foofu jaxase ko. mais bu ñu dajee lan nga gis. bu ñu bëree Ama ko bu ñu xeexee Ama daan ko te li ma lay wax nii dinañ ko génnewaat. ah alliance Modou Modou Modou Modou Modou euh, Modou cooma de comme ni Ama Baldé nekkee cooma jàpp ay grand frère bi leen gëtëm di leen jàpp di leen daan mais tamit tamit Modou Lo tamit ah boobu du yomb de. comme ni ngeen ko yombalee nii. seetaan nga Mourlo Papa Sow seetaan mu Ama Baldé Papa Sow. Mourlo sax ñoom ñoom seen jëm bopp xam nañ ni combat bi du yomb parce que booy dafa yàgg nekk ci kawam du ko laaj. su ma la waxee de Ama day daan Mourlo moom bu yow a tax a téere. Ama de roi de arènes lay laaj mais comme ay Mourlo yi nii non. Mm-hmm. kooku pare nañu moom bu yàgg. pare ngeen ak kii kon kon dañoo bu ñu déggoo see dañoo bëgg a euh, confirmer que ni Ama Baldé daan wax dëgg la ne su ma sama roi des nu ma leeree wala ba jàpp Modou Lô nu ma leeree tey jii euh, mun mun naa kii dem àjjana. waaw mais loolu la am loolu loolu mooy gëm sa bopp. Mhm. mbër fekk yaa ngi koy bàyyi xel wala ngay def benn affaire naan su ma yëkkoon wala nga si am tànku ginnaaw bi yóbboo nga bàyyi ko. Mhm. Mhm. tafaatin Boy Niang. waaw combat boobu moom boo xoolee ci bëre lay jeexee. parce que boo bëggee xeex te man du ma xeex xeex ñaar ñoo koy def. mais Tapha Tine day xeex booy Niang day xeex. mais Boy Niang bëre bi la gën a favoriser mun na xeex. te hmm. Boy Niang moo daax xeex ci làmb ji. mais xeexagul parce que boo koy gis tamit ci combat ci combat Sa Thiès gars yi dañ ne non Sa Thiès bu ñëwee dafay diriger dafay duma dafay daan mais euh, fañ ko foogee woon demeewul waaw parce que moom saa bu lay dóor mu ngi lay xool. Boy Niang mun a xeex. Mhm. ak xeexkat du benn. Mhm. Boy Niang daal mun a xeex. Mhm. mun a xeex mooy ngay xam fi ngay dóor. ak kañ ngay dóor. mais Tapha Tine defet bu ñu jël ci Ama Baldé ba léegi da koo metti waaw moo tax ma ne la combat boobu du yomb mais bu ñu bëree combat bu gaaw lay doon bu ñu xeexee nag mun na metti ci ñoom ñaar ñëpp. Mm-hmm. kan nga yaakaar ne mooy daal. non bu ma Boy Niang moo daax a bëree Tapha boo xoolee bob bi li ci nekk ci bëre bëriwul. jàpp nga ne xel bu ko Boy Niang jàppee daan ko. Tapha Tine bu mënoon bëree bu mu dumoo Bombardier du ko du am victoire par décision arbitre da koy daan. mais des fois làmb mun na ñëw nit ki même boo koy jàpp di ko dóor nii. tëdd ko jug tamit bu boo warul daan doo non boo mënee boo mënee bëre comme Balla Gaye mhm. foo demandé di nga xam noo koy daanee lan mooy sa kii yaag Balla parce que dama damay gis fi ñu toog da ngay jël exemple ci non c'est que dafa neexul dafa neexul nangu moo dàq bëri ci làmb ji man Pikine laa dëkk je suis fier d'être mais Balla moo dàq bëri ci làmb Balla Gaye dàq bëri ci làmb moo daq bëri ci lool am na mbër yoo xam ne bu ñu jàppee benn loxo mhm. dañuy bëri mhm. bu ñu jàppee beneen loxo duñ mën a bëre parce que seen fort ci benn loxo la ne. Mhm. mais Balla ci ñaari loxo yëpp lay bëree fu mu la jàpp day bëre. moo dàq bëre ci ayam. moo dàq bëre ci làmb ji. mais ñu ko daan nag. waaw mais lépp am loo gis si àdduna am na bec noir. Mhm. loo gis si àdduna rek am na bec noir. Mhm. d' accord alliance loolu la ne gis ci àdduna rek am na am na kii benn mais sa problème yàgg moo gën parce que dégg naa mu ne am na ay combat yu lay doxal ci suuf. waaw moo gën suma suma suma frère la ñu ngi dox combat bi hmm. ñu ngi koy dox ñu ngi ci combat bi di ko dox mais bi Pato daal lañ doon déglu hmm. waaw accordam daal lañ doon xaar quoi mais moom nangu na mais manager moom nangu woon na hmm. waaw lu tax lu tax lu tax ba léegi ah accordam lañ doon déglu de maa ngi doon déglu accordam quoi mais comme amaguñ accord daal amaguma lu leer noonu ci làmb ji quoi yàgg na waaw yaa ngi ci maa ngi ci lépp fi toll nii waaw kon kon baax na léegi kon bu ñu fa jigee tamit mais alliance temps yi lan nga gisee réseaux sociaux yi mu demee doy de. c'est que dëkk bi man pour man dëkk bi dafa am yoo xam ne dafa yomb quoi. dafa yomb dafa yomb. Mhm. parce que mënuma imaginer ay góor yàlla yoo xam ne ay góor lañ. Mhm. ñu ne ñoom bëgguñu góor bëgguñu jigéen quoi góor la ñuy wër. Mhm. <laughs> mënuma imaginer loolu. coow lu bari affaire homosexuelle yi bari na gars yi ñu ci wax di ci coow. barki Serigne Ba man damay toog ba si yàgg dama naan man Sénégal ban Sénégal la léegi quoi parce que bu ñu demee ba ay góor yàlla jàpp sa yaram xeesal ko. Mhm. xam nga di def yëfu góor jigéen. sa nekkul tamit lobby yi demul ba ëpp fii nii Sénégal. mais lobby yi ñoom ñoo ko ñoo ko ñoo ko xatal fii ñoo ko dugal. ci réew mi sax gis nañu sax ne aussi tamit am na ay kii euh, comment dire ne. éducation booy sax dañ cey bëgg a def loolu di leen jàngal wàllum xam nga ni xale yi di di di seeg loolu tamit est ce nekkul tamit war dañ cee war a taxaw. mais nguur gi ñoo ci war a jug rek. bu buñ ci jugoon léegi ñu jug léegi loolu juge fi parce que léegi da ngay xool xale bu góor boo xam ne nekk nga ci showbiz bi bëgg a am tur faaw nga def yëfu góor jigéen pour nga am tur mhm. jàpp sa yaram bi xeesal ko fréquenté ay góor jigéen mhm. yaakaar ne yow yaa ci nekk adduna am na mais alaxira am na de d'accord mais wàllum def taatu nen waaw xam nga waxoon naa ko ci aada moom man leen yor naa vidéo yoo xam ne bis bu ma ko génnee loxo dar gémmiñ vidéo aada moom nee naa la góor la doon génnal bu ñuy wax Alain waxoon naa ko dinaa ko waxaat est ce que bu ma ci waxee tontu na. déglu leen dégg dugaat leen ci réseaux sociaux ngeen xool ko bu ma tuddee Alain. Mhm. ba léegi tontuwu ci. te pourtant xoolal ku wax mu dugal la. Mhm. ku wax mu lijjanti la ku wax mu dugg say affaire ba. lëj saaga mais tamit am na benn côté am na benn côté gars yi tamit ñu ngi ci ñu ngi daa ko ci côté boobu parce que nee li muy def. am na ñoo xam ne bi nga ko bi ñu ko déggee muy gis mi ku dugal vidéo mu génn wax ko bu yàggee ñu bari nañu bàyyee ci loolu ñuy def. non du question bàyyi gis nga sutura. Mm-hmm. gis nga nit. waaw da ngay nekk ci li nga nekk bàyyi ak nit mu nekk ci lu mu nekk. mais tamit est-ce que nit ki yaa mën a jox sa bopp sutura quand même. waaw mais yaa mën a jox sa bopp sutura. suñu borom dana. xamee nit da am sutura. mais ba nga xamee da dangay def loo xam ne aussi tey bëggoo mu feeñ. Ah, alliance waroo koo def. Issa xam nga am na lu gën a bon taatu neen ci dëkk bi nan moo ñaata nit ñoo fi sacrifice seen i bopp seeni doom seen i nit pour am alal. mais loolu kenn ko yëg. waaw mu ngi noonu nag kon tamit moom moo loolu moo gën a bon tâche ne ñuy def. kon yow gars yi da leen a encouragé. non ma leen mosuma leen encouragé. parce que nit mu ngi def lu gën a bon li ñuy def te video ñu seen bopp ñoom ñoo war a suturaal seen bopp balaa ñu leen di suturaal mais tam aadama moom moomul nit ñi gis nga bu fekkee da ngay topp si benn affaire chaque jour ngay. xaayu sutura doomu aadama yi nit ñëpp ñoo war a jug pour wax ak jaww mais Adamo dafa am sénégalais yu nekk sénégalais yu koy encouragé. benn mooy ñiy jël vidéo yi du ko envoyé. mais tamit gars yi mënuñoo bàyyi vidéo nga foog. waaw mais ku ne ak li nga xam ne ñoom vidéo yi ñoom la intéressé xamul tax ñoom la intéressé. Mhm. ñenn ñi seen i lañ ko doon defaral ñenn ñi seen gel lañ ko doon defaral. mais tamit. Mhm. est-ce xam nga lan lan lañ waxante moo xale bu jigéen ba wala lan lañ waxante moo xale bu góor ba bañ bañ bañ def bañ def loolu. waa mu ngi noonu nag. après vidéo bi li koy génnewaat mooy problème mooy am. xale bu jigéen bi hmm. day am beneen copain. Hmm. ou xale bu góor bi day am beneen gel. Hmm. jalousie day am. mu jël vidéo yi partagé ko. loolu rek moo ci am mais li ma la mun a am mooy. <laughs> Adamo dina noppi de. dañ ko mais vidéo yi la la moo la ko teree génne. su ma nee aadama moo dina noppi rek dina noppi. dañoo gis ni ba ko dalee wax dafa yàgg mais bu lay gisaguñ vidéo yi quoi yooyu yi nga gardé yor. parce que parce que chaque jour boo toogee xam nañ. Alain ma frère la tubaab la mais su ma xarit la su ma waay la daam ci lu mu nekkoon man maa ko jox ay conseil man maay waxtaan ak moom. mu ñëw Sénégal nekk kin fat may ànd ak moom di waxtaan ak moom di nekk ak moom. pendant un mois. comme moom dafa dafa jàpp ne moom ci gars yi la bokk Alain mi nga daal li ma leen waxoon rek këtt geen la. te dinaa ko waxaat. Hmm? waaw këtt geen la. xanaa da cee génnaat waaye këtt geen bu mag la boo xoolee yaramam boobu nga xam ne feebar moo tax ngandewul. <laughs> daf feebar waaw moo ma leen wax ni bientôt di ngeen ko xam aadamo feebar moo tax réewul de am na yenn yoo xam ne mënoo du ko def mu ànd ak yaram xam nga ne aadamo mi ngi lay mi ngi lay ba mooy ba pare dina la déglu dina du wax ci man <laughs> lu garaaw laa du ci wax du ci sax commentaire. aadamo du wax ci ñëpp alliance kenn du wax ci yow. Adamo doo dégg mukk mu wax ci man Adamo bi ma njëkkee def vidéo dafa ma woo Instagram jëluma ko moom ci boppam waaw mhm. mu envoyé ma message jëluma ko mhm. Adamo yorul benn numéro yor na ay numéro yu bëree bëree bëri yor na sax ba yor numéro Sénégal yaa ak ay numéro déggoo yor na sax ba yor numéro Sénégal numéro Sénégal boo xam ne dañ ko ko ubbil te ku ko ubbil góor la mu ngi fii dafa am góor yàlla yoo xam gëmuñu seen bopp. Mhm. ñàkk a gëm sa bopp mooy benn waay bu nekk fële di xaawi sutura di la yónnee ay vingt mille. Mhm. ay dix mille franc ngay ñàkk fayda. Mhm. yenn saa yi day dugg si direct bi sax naan ko. sawaay woo ko woo ko woo ko. nga xam ne ki muy waxal xam ne am na ku nekk fii ku koy wooteel hmm. am na loo xam naa sul nañ def suñ boobu ay góor yàlla hmm. nit lu mu am moo ko may boppam bul yaakaar ci kenn hmm. waaw nit da ngay gëm sa bopp balaa ñu lay gëm yow yaay njëkk gëm sa bopp boo gëmul sa bopp kenn du la gëm mais tamit dañoo jàpp ne affaire yi boo deful taatu neen wala nga am noo defee buzz bi doo ko am ah. am na xale jigéen yoo xam ne dañuy woo Adamo baaraam seen bopp pour mu dugal vidéo bi parce que tur lañ ciy wut waaw mais tamit artiste yi koy def nag waaw mais artistes yi moom. waaw benn instant man dama leen xam nga duudu suma gayaan la parce que. Mhm. mën naa ne avant théâtre laa ko xam. duudu mais waaw. Mhm. mais dafa am góor yàlla yoo xam ne dañuy ànd ak yow ànd jeente tàggoo jëwante. Mhm. parce que vidéo bi seen lobi la génnee seen loxo la génne d' mais tamit ak tamit ngóor tamit gis nañ mu def ko mu def vidéo. waaw mel ne affaire boobu dafa dem ba léegi dañ ko def benn. mais vidéo yi gars yi dañoo xamul dara du vidéo yu bees. vidéo yi yàgg la. mais ak lu mun munti yàgg yàgg tamit ni ngi doog a feeñ. waaw mu doog a feeñ waaw parce que. ñu bëri dañuy yàpp ne vidéo yi vidéo yu bees la ay vidéo yàgg la du vidéo yoo xam ne dañ ko def noonu noonu rek mu génn. Mhm. mais bu fekkoon képp koo xam ne jël nga vidéo jàmbur dugal ko wala nga joxe ko ñu jàpp la daan la benn 2 mois wala benn 4 mois léegi loolu juge fi. Mhm. waaw léegi mu juge fi. comme nee nga Doudou sa frère la sa xarit la lan nga koy digal. waaw lu ma koy digal mooy comme li am am na ba pare mënatul arrière mënatul dellu ginnaaw mhm. mënatul fexe ba loolu amul mhm. mu nekk ci lu mu nekk mhm. gëm boppam te xam ne sa loxo ndeyjoor bi ak sa loxo càmmoñ bi sax jarul wóolu d'accord waaw nit boo nekkee ci dara da ngay vigilant li ma xam di ko waxtaan ak suma xel du ma ko waxtaan ak suma mag mais des fois nga gis koo xam ne da ko wóolu kooku moo lay génn noonu la demee nag moo tax mel la sa loxo ndeyjoor ak sa loxo càmmoñ sax jaruñu wóolu li mm-hmm. promoteurs yi la nga leen wax. waaw comme lu may wax rek nañ jàppale ndaw yi xam ne ndaw yi ñoom ñooy màgg ëllëg parce que booy ndaw yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci làmb ji ñu leen di jox ay ticket ñu jaay. ñu leen di mm-hmm. jox ay ay ñoo xam ne balaa ñuy bëree dañuy liggéey. liggéey bi mais loolu yaakaar naa dina woon nekk comme tey mbëb du nga ko joxee avance ne la yow sa reliquat say moment say billet lay dépendre lay jox billet nga jaay ko doo ci mën a génn après. waaw loolu waxoon nañ ne xeex nañ ko. Mm-hmm. mais am na mbër yi dañoo bëgg a bëree bu leen ko defee duñ ko nangu déclaré. parce que ñoom bëre rek. la na ay mbëri yu koy yu koy yu koy yu koy bëre waale. ba léegi mu ngi am joxe xaalis doog a bëre ak jol bee jël ci jël ci sa avance. reliquat bi moom CNG lay dem kenn ñu moo ko joxe ci bee. Hmm. mais avancé ba léegi ñu ngi koy joxe ci bee. loolu war nañ cee taxaw. am nañ association. Hmm. boo xam ne tous les jeunes lutteurs ñu ngi ci nekk suñu président mu ngi nekk. Euh, mobile de mobile 2 bu muy nekk Pape Konaté am nañ Onde le Fou ñu ngi dox ci loolu. Mm-hmm. ñu ngi ciy liggéey. Mm-hmm. parce que man du ma ne benn promoteur yàllaa ngi lay nuyu te gisuma ko. Mm-hmm. li may yóbbu suñ kër ak li may lekk ak li may dundee. suñ borom moo ma koy jox. li suñ aussi dañoo jàpp que ni kon bi ñu jëlee xaalis yi xam nga dëgg la euh, leader yi tamit dañ leen dañoo war a jël ay avance mais imagine toi nga gis benn mbër di jël ay trois avance am ay boo yoo xam ne dañuy xëy. ci bëree rek lañ yaakaar di xëy di bëree tamit xam nga dem di entraîner du ñu am sax lu ñu lekk ñu ñoom ñu war a jël ci loolu jox leen ñu bëree mais bu ñu ko bëggee bu ñu ko bëggee ah, bàyyi ci mbëri mag yi loolu lay andi yenn détails ñoo day metti mais tamit ku ne ak sa wërsëg. Mhm. xam naa ñoom loolu moo nekk seen wërsëg. Mhm. mais man góomu mbër bu ndaw toog ne liggéeyuma si làmb laa yaakaar làmb continué wu làmb wóyul utal looy def. Mhm. parce que di nga toll foo xam ne boo soxlaa wala feebar ñëw da ngay génne faj sa bopp. man góoma loolu jiima la ut leen loo xam ne di nga ci téye. kon yow basé woo ci bëree rek. non non man maa ngi maa ngi sumay business maa ngi suma liggéey. Mhm. waaw. loolu am na soo mu wax digal booy ne euh, bu ñu basé wu dara seen lépp ci wàllu bëree alliance yaakaar naa ni kontaan nañ émission bi duñu may ci ay temps jeex na. Mhm. lu def lu rek jox la nga tàggatoo. waaw di nuyuwaat suma sëriñ di ko ñaanalaat sëñ Abdou Bara Mbacké Fallilou mu yàgg fi lool di ñaanal mm. suma frère moo get yàlla defal ko tawféex Sankara Mbaye dem si guddi dañu déggante mu nekk Baye Fall nekk ku baax maa ngi koy siyaare di ko mm. ñaanal waaw tawféex mm-hmm. di ñaanal Pikine yëpp jàmm yàgg fi mm-hmm. di wax senegal yàlla na fi jàmm yàgg yàlla na fi jàmm yàgg mm. di ñaanal suñu sët bi mm-hmm. Dakarnet waaw suñu borom defal leen tawféex ñi fi nekk ñëpp suñ boroom laax leen fu laax yeggul di ñaanal suma rakk Amadou Camara di ñaanal suma yaay mu yàgg fi lool suma papa di ñaanal suma seexu yàlla bi borom États-Unis mm-hmm. yàlla defal ko tawféex ah di ñaanal borom Mortani Dabassar suma grand frère njaga Diop di ñaanal Pikine yëpp suñ borom defal leen tawféex di wax ne. Mm-hmm. góor yàlla day góore Ouzin Keita. <laughs> Pawlish Mbaye góor yàlla day góore da ngeen deere yi ngeen di def nii xaalis bi alalu àdduna bi fi ngeen koy bàyyi gëm leen seen bopp ngeen bàyyi affaire yi ñu leen di giiñ yéen lu ñu leen waxal yéen la Ouzin Keita Pawlish mbay lu ñu leen waxal ñoom la am na fu ñu leen gis yàggul bu ñaaree man maa ngay wax fan nga gis non wax baaxul ñoom xam nañ am na fu leen gis yàggul bu bu ñaaree man maa koy fësal xam ngeen ne man ragaluma loolu. Hmm. ana góor yàlla ak jàpp sa yaram bi xeesal di fréquenter ñoo xam ne dañ naan mooy loolu. mooy loolu góor dangay gëm sa bopp balaa ñu lay gëm. mais mais mais mën nga ñëw compal tuuti ñoom xam nañ man may ñëwaat fii bu ñaaree man maay indi sam bopp si émission bi. Hmm. xam nañ fi xam naa fi ngeen nekk. Hmm. xam naa ban heure ngeen fay nekk xam naa ñi ngeen fay nekkal. foofu ca Almadi. wax laa leen wax nag yoboo ngeen tee seen bopp <laughs> góor yàlla da ngay góore. Ouzin Keita defal sa bopp góor yàlla bi mu fi nekk jeudi soirée sénégalaise ndege di la jox nga njëkk a way ñu lay may ay mille francs ay téeméer boo fàttalikoo loolu. war nga looy dugg war nga koo xoolaat. léegi Pawlish nag. ñoom nañ ji def seen boobu góor ñoom ñaar bu nga gis ñuy waxante di werante dana ànd ay copains lañ. Hmm? te buñ nekkee si tele bi di. ji ma barki maam si ñoom ñaar ay gaañ lañ ñooy ànd. Hmm. am na fu ñu leen fekk yaagul am na benn gaañ bu ko dugal. Hmm. ngeen bëgg a weddi na ngeen régler seen bopp waaw bu ngeen réglé wul seen bopp rek kaa bi nu la jub Adamo xamal sa bopp kët mm-hmm. a moom mu lay seetaan xam naa moom non moom daa war a xam boppam mu mm-hmm. bàyyi gars yi bàyyi moo get mu nekk si jàmm bàyyi ñeneen ak ñeneen mm-hmm. nit a ngi def loo xam ne buggul kenn fësal ko mais yow li ngay def moo gën a bon ay góor comme yow ñoo lay fay xaalis bi ngay yor di ngay fay appartement ay góor a koy fay kon war nga régler sa bopp jaajëf waaw ah, kay jaajëf mi ngi noonu tey yaakaar naa ni di leen andoon neex la mi euh, Alliance Baldé euh, ñun moom saa yi def ak moom émission rek dañuy am mbégte ak contentement parce que lépp ñu bëgg a xam rek incha allah moom dina ko génne du ñu def rek lu dul dig leen daje beneen ak keneen incha allah jaa ngeen jëf.